euh, loi d'amnistie c'est pour c'est pour euh, euh, c'est pas pour les coupables en tout cas c'est pour les délinquants maanaam délinquants yi la ñu baal ana délinquants yi léegi fii li amul mars tout est parti. c'est pas pour les coupables. non non c'est pas pour les coupables c'est pour non c'est pour les coupables. Oui, pas pour les victimes. voilà c'est pour les coupables. exactement oui. c'est pour les délinquants quoi. oui de pour les coupables mu ñoom la ñu baal. te ñoom cette histoire li xew mars ak juin ba léegi kenn situé wul les responsabilités. tout est parti de l' affaire Sweet Beauté. président Ousmane Sonko li wax complot la en vue de m'écarter de la présidentielle te ba léegi nii loolu kenn weddiwu ko kenn démentirul ne c'est un que c'est pas un complot te li li ñu gën a jàpp. mooy que ils ont voulu l'écarter de la présidentielle loolu def nañ tout bu am ko même bu nekkee à la suite j'ai j'ai l'impression que ils ont été surpris donc de la de la tournie de de l'événement en tout cas de l'opinion surtout de l'attitude de l'opinion ce qui veut dire que fii nii fay ni ak ni mu ni mu ni mu ni mu tegloo mun na am ñi ñu jàpp ne ñoom ñooy les coupables ñoom ñooy les victimes mooy ñi ñu tëj mooy ñi et cetera li ñuy wax les détenus politiques jargon mun indi lañ ko fi ay xawma ay forces occultes am na beneen affaire bu yeneen expression bu ne bu ne utiliser nañ ko fi donc loolu moom moo tax s'il y des gens qui ont comploté dans ce pays pour créer les événements de mars c'est-à-dire que pour éliminer un opposant parce que attention li tax ñu am faisceau d'indices que mën na dëgër la thèse du complot mooy le capitaine Touré il a di que dossier bu gënoon yomb dans sa carrière moo ko créé le problème n'est-ce pas loolu noonu tant que réglé wuñu ko on réglera le problème di sa tey nii Ousmane Sonko ay négociations yooyu Ousmane Sonko dina négocier bàyyi du affaire boobu Ousmane Sonko attention deram setul deram dara setalagu ko sûr te il faut pour mu setal ko il faut ko ñu enquête boo xam ñan ñoo def complot bi te loolu moom. du ko nangu on va on va revivre le scénario xam nga te xam nga peut-être maanaam le pouvoir yéen ñëpp d'accord ne le pouvoir mu ne ci impasse moom mu ne dans une position inconfortable maintenant di ut nag ay sujets ay calmants yu mu jox nit ñi pour doxal moom li mu bëgg c'est vrai que y a des détenus il faut les libérer. il faut les libérer il faut libérer les leaders pour Ousmane Sonko ñoom Diomaye il faut les libérer nest loolu du tax nag nit ñi jàpp donc ñoom dañu am li ñu bëgg maanaam rapport bi jàll donc ñu yóbbu dem élection présidentielle mais exactement ngeen bëgg aussi bu ma la dégloo nii. da nga ne il faut mu leer il faut ñu setal seen der. après derrière aussi. ngeen bëgg ñu libéré leen léegi après mooy nekk la suite. loolu moom changement politique bu amee affaire bii nii dafa coûter le Sénégal lu kenn xamul. sa paix sa stabilité son économie y a des loolu mais loolu doo ko jël nii rek parce que ñoom la cette justice là da xamante ne ça a une justice des vainqueurs jël nañ jàpp nañ manifestation manifeste déjà dañoo xam ne am na ñuy tirer mais on semble dire que am na ay force yoo xamante ne nii il ne serait pas des FDS yuy utiliser des balles réelles contre des manifestants mais loolu cette situation kenn kenn kenn situé cette responsabilité li wax fii démb ci loi amnistie mooy on amnistie des faits. des faits donc mais attention bu ñu nangoo bu ñu non non non des faits connus des faits jugés. en principe dans une situation normale.